الحمد للحق المبين من كونه ليبي على الكتاب المستبين ما جميع النعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi topp seen télévision Mouridis TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyoob jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyoob taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi yokk kàttanam ba mu mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal Xaadimu Rasuul te ànd koog mboolem njabootuk Serigne Touba gépp noonu la ñuy ñaanale mboolem kilifa dina yi ak jullit yi ak mboolem taalibe yi noo ngi ziyaare bu baax mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci seen émission bi nga xam ne moom la ñu duppee yataayu sëriñ bi ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana nu am yéene dikkat ak yéen ci suñu beneen tomb ci jataayu sëriñ bi. waxi sëriñ bi ci koor ak laylatul xadari yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tataxuun sadaqallahu alazim borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne yéen way gëm yàlla ñi farataal nañu ci yéen koor kom ni nga xamee ne noonu lañ ko farataale woon ci ñi leen fi jiitu woon ngir ngeen mën cee jëlee ak ragal yàlla sëriñ tuuba qaada lahu allahu maxtaara lahu daawul yónni ci weeru koor ku woor daawu ko defloo dara weeru koor itam ci la sëriñ bi daan gën bari lu muy joxe wér na lool am na taalibe yu doon dundal laylatul xadari ci nekkub sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtara lahu andi ci ay way ba mu ko yégee moom sëriñ bi ne leen laylatul xadari du tey wax leen ca geneen guddi tey jii la siiw na way yi ñoo tàmbulee du naka yaa man laylatal xadari tarum nazman ata bi ma xaka ahlul ulum kon nettali bi day xamle ne guddi la gu ñu lëm teewul dundal ak guddi gu mu mën a doon day dindi ay bakkaar rawatina ci biir weeru koor moo tax sëriñ Tuuba qaala lahu allahumma axtaara di wax ne inna tux yi laylatan bi sikri rabbika tusbixu kal walla waladatka ummuka sëriñ bi di wax ne dundal guddi gu mu mën a doon ci tudd borom bi subhanahu wa dafay soppi nit ki ci setal ko ay bakkaar ba muy mel ni kuy door a juddu ci waajuramu jigéen bayit boobu mu ngi ci biir masalikul jinaan waxi sëriñ bi ci ataka wa mimma rasaxnaahum yunfiquun sadaqallahu alazim am na ku mas a jóge fu sori ñëw jox sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtarlahu ab xaalis bu bari ne ko asaka la sëriñ bi ne ko dellul fa nga jóge woon am na juróom ñett ñu alxuraan tudd koo ca nga jox ko ko siw na bokk na ci farataay joxe asaka ñàkk ko toxal xul niyatun tamaam xawlin wa tamaam nisaabuha adamun naqlin sa tamam bu fekkee ne ñooñee mu nekkal daa am ñu leen ko gën a yittewoo sëriñ bi nee na da leen di jox dara door a yóbbu la ca des feneen juróom-ñett ñooñu muy misaal sëriñ Tuuba Sayxul Xadim andi na leen ci tazawudu subaan waaye ba tey ñoo nekk nii ci aaya bi ni ko alquraanul karim andee إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعارمين في سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والlahu alimun hakim wallahu aalam waxi sëriñ bi ci tuub wa tuubu ilallahi jamian ayyuha almuminuun laalakum tuflixuun borom bi subhanahu wa taala ba tey muy wax ci alquran ne eey yéen way gëm yàlla ñi dénk naa leen ngeen tuub jëm ci seen borom yéen ñépp bu ngeen tuubee day jëm ci borom bi subhanahu wa xëy na ngeen ame ci ak texe Sëriñ Tuuba qaada lahu laahu maxtaara lahu nee na doomu aadama yar képp la am yéene ak tuub li baax bu fekkee daa bari ba mënee futa def lépp na ngay def la nga man la ca des nga di ko yéene boo ko defee ñu defal la la nga yéene niki la nga jëf di la ko fay li yitam bu fekkee daa bari ba mënee futa bàyyi lépp nangay ngay bàyyi la nga man la ca des nga di ko tuub boo ko defee danga danañu koo far te lu ñu far ak lu ñu bindul ñooyem wér na lool sëriñ Tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu nee na yi nga xam ne dañu koy jëmale ci lu amul njariñ ginnaaw tuub gu sell mi ngi mel ni ku wàccu ba noppi ñu lekk loo ko ko ki nga xam ne dañu koy jëmale ci lu xaraam walla lu ñu sib ginnaaw tuub gu sell mi ngi mel ni ku ñuy lekkloo ay xel walla ay jiit sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaar lahu nag teg ci dénkuñu ne bu nu bu leen ku baax woowee ci ñam wu baax na ngeen lekk waaye ku leen bëgg a lekk loo am wàccu wala ay xel wala ay jiit nee na bu leen ko nangu wér na lool wallahu aalam mbokk yi ñoo ngi leen di jox dig daje ci sunu beneen jataay ci sunu beneen tomb ci seen télévision Mouridis TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu